tudd déedéet directeur fa ne Amadou Ba day ah daal di ne tontu Karim Wade nag Karim Wade mi nga xam ni kon di président Macky a ah, ah, ah. day daal di ne yàq nag candidat wu PDS bi ne maa la ko ministre économie ak finance waaw nee na discours nga xam ni kon Karim Wade daal di ne ko yëkkati ni day yàq ko tax a jóg rek moo ko tax a jóg te dara ci dëgg daa wax moom Karim mi nga xam ne day mi ngi xam le ne wàllu kookoomu réew mi lée gi mënuma koo bañ a tontu laa la wax Amadou Ba ne koppar gi nga a a Ba neex ci alalu askan wi lée lii fi xawoon kon ci jamonoy Abdoulaye Wade laa la wax Amadou Ba tey ci yéene gi waaw nee na ñun bi ñuy dikk ndonn li nga xam ne kon moom la fi PDS fay kaotique dara baaxu ci yokkute ci wàllum koom goo xam ne 3 virgule 5 pour cent la ci fukki at yi mu ci yë 2002 2012 Amadou Ba ci Dakar Times gisee Karim Wade mi ah tey maa xamal ko ni day Sénégal saay bu xëy yokk Sénégal moom saay bu ñu xëy day yokk bërëbisi lay yokk ministre bi ko wax samay kàddu de box boobu li ne en tout cas Amadou Ba day waaw daal jubanti nag gone kii kon bàyyam da koo yàq l'enfant gâté Amadou Ba yar toftal ci am gadaay ca Qatar mel ni ku a àjjana eh. eh Karim Wade da doon xam gis nga réew ci suuf la jëm waaw waaye day ma xamal ko day li ñu fi bay ci wàllum ceeb ci wàllum gerte mbayum ndër diggante lu fi doon am benn président Macky Sall def na ko ñett da koo triplé eh sur sa année ginnaaw nag ba ñu jógee kon ca Paris la France ka eh, ba daal di fay for lu tolloog juróom-ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak benn ci ay milliards Macky Sall waaw Bassirou Ndiaye nee na xam nga ngay ngand ngandaloo yoo am bor abor nga koy ngand ngandaloo loolu dafa doy waar ci am koom-koomu réew dayoo bor nga xam ne day la nga ko gën a mën a wàññi rek moo gën lu mu gën a a ndaxte nee ginnaaw nag lu jege kon juróom benn junni ci ay milliards yoo xam ne moom lañ defoon day ca paba plan d'action prioritaire bu plan Sénégal émergent ba day waaw yokkute gi boo dajalee lépp passéwul ci ñeenti at yi waaw Mounirou Ndiaye yemu ca ndaxte nee te xoolal ma léegi kees nguur gi day lañ ca ñàkkum ko par tension de trésorerie ak ay projets yu bëree bëri yoo xam ne kon nañ ko doon liggéey daal dinay taxaw bor bi nga xam ne tamit nguur gi amee ko fii ci biir mi lée saa bu ñu xëy muy gën a Dakar Times dama ne gis nga yoo xam ne dañ koo jaglelee woon école privée daal dinay jug nag aa maa la ko ngir nag ñu xam kon xaalis boobu nan lañ ko doon jëfandikoo ca ministère enseignement supérieur réew mi quotidien en tout cas président Macky Sall day waaw nee perte de temps xam kon ñu ngi koy nimiku ci administration bi day dana ca jublu de mbir yee yéex xëy huit heures wàcc ñaareelu fanu kon groupe consultatif ba ca Paris bee waaw président Macky Sall day ma ngay danc ne kon privé national ba ngir ñu yëngu parce que président nee na képp koo xam ne kon da ngaa nekk ca privé ba day te mënoo gaawal say mbir mënoo koo accéléré wéy boo nga ah, ah. waxal ñoom nañu may tuuti espace yeneen fournisseurs yi ñu mën a laal internet l'observateur ne président Macky Sall kay waaw tapis rouge day nee na leen ñëw leen investir yéen gi ne Sénégal day waaw daal dinay ubbil ay buntam nag lu tolloo juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñetti ci ay investisseur Cheikh Amar waaw daal dinay ci ay milliards la ilaha illallah Locafrique ah. daal dinay teg ci table ji lu tolloo ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards laa la wax maa la ko wax ci wàllum bi la ak wàllum courant ba Khadim Ba mi président directeur général Locafrique holding ci libération yéen waaw nee def nañu kon lu tolloo ak fanweer réew ci wàllum énergie bi la suñu xaalis toll na ci ñeenti téeméer a fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards laa la wax xaadim baa ko wax Mamadou Lamine Diallo day lim wax ci benn quatre waaw nee na gouvernement bi ca Paris gale groupe consultatif bi waaw xawaare la xawaare exclusive yéene kaay ni ko dëgg sabar kay gu rëy xawaare ay bukare kese la fa Amadou Ba koon organisé ndax ministre bi day ay communicateur traditionnel am yooyu yóbbu ay géwélam ay waaw ne ministre bi day li mu dépensé waaw ay téeméeri millions laa la wax mar day taali moo gàngooram organisé sabar sabar de la république la fa improvisé daal di dëgg mu neex eh te jamono joojee enquête yéene kaay nee na sànq train express régional ba ca Tëngéej day laataa bee bare waaw askanu Tëngéej googee ñoom ñu ngi dund ab coono loo xam ne trop xam ne kon ëpp na sonn nañu laal Tëngéej kay fi mu nekk nii soppi nañ ko digg ba la ñu ko dagg embouteillage ya jëm wiiri dugg ca biir ko ñoo mel ni duleg male askanu Tëngéej daal fi mu nekk nii mënatuñ ko bàyyi ba du jóob waaw nee ay pont kay la waroon lal ci kaw laataa ñoo teg raay évidence yéene kaay ne faatu gi nga xam ne nag maanaam kon fàllu seen daal dina koy faatu day université Gaston Berger waaw ba léegi nii la ñu ngi mer laa la wax termine yéene kaay ne atewu Xalifa Babacar Sall bi day ana yan magistrat a président Amadou Baal ak Mbacke Fall Ibrahima Sy a Ndiaye ak Fatou Lekor dama ne la ate boobee suba kon ci alxamis yi la ñu ate les écoles yéene kaay ne Serigne Sidi Alxuraan Mbacke day waaw daal di nay lànk tëdd ca ne du dalal président Idrissa Seck maa ren Italie du ko recevoir waaw seen dajaw 2016 la day fa la seen réeroo amee source année Bakary Biaye waaw moo nekkoon chef du domaine agricole communautaire ca diwaanu la ne candidat d'ambition évidence yéene kaay ne accident bu miti day moo am ca technopole ba ay militant wa APR toll nañ ci fukk ak juróom ñaar am nañu kon ay gaañu-gaañu laa la wax yéene kaay gi ne génn àdduna Seydi Lamine Niass day boo sàgganee Ahmed Khalifa Niass dana porté plainte de mar di Italie leesi ko yéene kaay ne gis nga ndonnuk Seydi Lamine Niass Cheikh Niass ak Ahmed Khalifa Niass ñi ngi xeex ci kan mooy wutu la mu laa di Seydi Lamine Niass kan moo koy wutu cey ndonn ma ne la tëjal